ba tari ko ci tarin wu rafet di atum 1441 ginnaaw gàddaayug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoog atum 2020 ñu bàyyee ko ca diwaanu Poroxaan ñëw fi nga xam ne moo di ci Touba Daarul bi nan ngir jury bi nga xam ne moom lañ taxawal ñu war leen déglu saytu seen ak mokkal ndax wér na wala déet loolee amal nañ ko ci alxames ji dëppoog ñaari fan ci tabaski di le 23 juillet 2020 bi ñu xëy see mbooleem membre jury bi teew nañ ànd kook ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñ daara yi leen war a déglu ñu jox leen fiche yi nga xam ne ci lañ def mbooleem charte yi nga xam ne moo jëm ci tari gi ak note yi nga xam ne moom lañu war a jox maam jaare yi ginnaaw mokkal gi ginnaaw bu sëriñ daara bu ne xamee ña nga xam ne ñoom nga war a déglu ca lañ daal di door liggéey bi wa waddat taifatun min ahlil kitaabi law yudilluunakum wa maa yudilluuna illaa anfusahum wa maa yash'uruun yaa ahlal kitaabi lima takfuruuna bi aayaati llaahi wa antum tashhaduun yaa ahlal kitaabi lima talbisuuna al-haqqa bil-baatili wa taktumuuna al-haqqa wa antum ta'lamuun wa qaalat taifatun min ahlil kitaabi aamanuu billadhii unzila alaa alladhiina aamanuu على الذين آمنوا وجه النهر واكفروا آخره لعلهم يرجعون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموصل للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه فاتبعوه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون يشركون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فانزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاء بينهما فبعثوا حكما من أهله من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا